aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ni ñu ko defee woon mm, bërkaati démb ak démb ak tey lañu fasaad yéene jaaraat ca ndax ni ñu ko waxee woon rek dañuy santaat yàlla bu baax a baax julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam wànne àndaat tuub te santaat sëriñ tuubaa bu baax a baax waaye delloowaat ñaanaat delloowaat suñu bopp ci yàlla rabbana tabaraka wa taala fas yéene ñaanaat tamit di jëfe ndigalul sëriñ bi te sàkku ay ngërëm ak i ñaanam lii xew fii wax nañu ko waxati ko di tiis wu méttee méttee métti wu dal ci sëriñ bi ndax sëriñ bee njaboote ñépp dal ci dëkk bu tedd bi waaye dal ci bokki taalibe dal ci marché bu nga xam ni mën nañu ne marché international la di marché bu nga xam ni li mu représenté ci Sénégal du ñu toogaat di ko wax muy marché Ocass ci baaxu kilifay tubaay yi nga xam ni ñoo ko sampoon ñoo ko ñaanoon lépp ci baaxu Serigne Touba gi ba mu toll fii ku ne xam na ni lakk gii fi am di tiis wu méttee métti gis nañu ne day lakk yi masa am ci Sénégal ci marché wala lu mu doon gisuñu lakk gu ni mën a gu ci mas a toll wala gu ni méttee mu dal nag ci ay bokki taalibe ni ma ko waxee dal ci njabootuk sëriñ bi kon dal lépp ci bokk ci ci ci bopp sëriñ bi waaye dañuy santaat yàlla ndax sëriñ bi ci boppam moo ñaanal boppam ne ñu nañu delloo lépp ci yàlla suñu borom kon te loolu la ñuy jëfe di massawu ñi nga xam ne ñoom la fi seeni alal yàqu ñoom la fi seenum koom yàqu te ñu doon ñu nga xam ne mësuñoo xëtt ndigal mësuñoo jóg ci nekk ci toolu sëriñ Touba bii ba samp fi wala suuxat fi lu nga xam ne waxuma tuubaa wante àdduna bépp bépp bépp ñu ngi root si ci marché occas bi am koom mu nga xam ne fu ñu dëkk fu ñu nekk fu ne ñu ngi ko fay suuxal waxuma ñu dëkk ci dëkk waaye di bitim réew ana waa Chine ana États-Unis ana waa Turquie ana ña dëkk Arabie Saoudite li fiy ñëw ci ay marchandises di jóge France Union Européenne kenn xamul lu mu doon te lépp dañ ko écoulé ci marché bi kon day mel ni xéewal gi wàcc fii ci Touba baawaan na ba dem ci àdduna bépp loolee nag bu dalee ci askan wu mel noonu te sëriñ bi massawul ñu ko wanne ñaanal ñu ci dañuy nangu loolu wanne ñu nit delloo lépp bàyyi suñu bopp ak sëriñ bi te sàkku ñaanam mu am nag lu nga xam ne santoon nañu ko keroog bi yëf yi xewee muy d'abord les autorités étatiques nga xam ne gouverneur moo ñëwaloon boppam ànd ak le préfet de Mbacké ànd ak la sous-préfet de son son adjoint ndax moo fi nekkoon keroog wante ànd ak le maire de la commune de Touba Mosquée ak conseillers municipaux yëpp ànd ak acteurs les euh, agents yi nga xam ne dañoo nekk ci commune de Touba moske bi àndante it ak Touba ci kanam nga xam ni ñoom it sëriñ bi ci ndigalam koomub sëriñ bi lañu ñu alali sëriñ bi la ñu alalu askan bi ni ñu ànd ak ñun ci biir liggéey boobu ànd ak tamit waa maawu raxmati desi wu ñu gannaaw wande àndante ak askanu Touba yëpp ndax muy jigéen di góor di mag di ndaw kenn ku ne keroog rawatina bi jumaa ji waxee que ni marché occas day ma ngay tàkk-tàkk gu métti kenn ku ne loo nekkoon foo tëddoon da ko koo bàyyi daw ñëw si wallu si wante li nga xam ni ma ni autorité yi moom la ñu waxoon keroog mooy ginnaaw lakk gi ay xal dafay desoon ay gilinti des fi ay sagar yuy lakk des fi mu ne bu sapeur yi ak police ci seen taxawaay ñoom tam ñu leen sant bu ñu fayee ba pare bu ñu xëyee ba ngoon ba lépp sedd nañu tàmbali seetal béréb bi yooyee ñu jëlee ko fi ndax jant bu ne loolee ngelaw mën na ko upp muy taalaat te boobu ba tey loolu la ñuy constaté nga xam ni bés bu ne léeg-léeg guddi ba bii nga ci mujj dañuy toog ba guddi rek fenn boyaat loola nag muy waa sapeur pompier ak police xalaat yi nga xam ni amoon nañu ko moo doon ni fii nañu ko seetal lu fi nekk ci ñuul ñuul wala luy lakk-lakk nañu ko dindi muy li nekkoon ci mbaar yi li nekkoon ci biir magasin yi li nekkoon ci étal yi li nekkoon ci taabal yi loolu lépp dafa àndandoo woon lakk doon fi ay ay xajam-xajam nga xam ni kenn xamul nu mu mel loolee nag ni ma leen ko waxee bi ñu ko santee commune bi nga xam ni moom la sëriñ bi jiital ci euh, soxlay askan wi waaye ni ma ko waxee mu àndante ko Touba ci kanam ak waa Maawu Rahmat ak waa dëkk bépp ak daayira yi ak délégué wu marché yi ñoom seeni jëng ak ñi nga xam ne ñoo jiite assis muy ñoom fàllu xumma ak Alaaji Fall mi nga xam ne ñoom ñoo taxawee marchand ambulant ak ak tablier yi kenn gisul wante ñu mobiliser mbooloo mépp loole ñun santoon ñu nekk ci ñetti fan ñetti fan bu ngeen gisee béréb bi ni mu meloon keroog ak nii mu mel tey d'accord mënuñu koo seetal ba mu raxas ba mu set bi wicc wicc ci ndax dayoo bi nga xam ne lakk gi amoon na ko waaye terewul ñu ko gisee nii danañ xam ni ndigal la sëriñ bi joxe woon mu jaar ci état bi jaar ci autorité étatique yi fi nekk muy l' administration wante jaar ci commune bi jaar ci mbokki yooyu mbokki taalibi yi ñu àndal muy Touba ca kanam ak Maawo waa marché bépp ndigal loolu keem nañu ma ne jëfe nañu ko ba tey wax dëgg yàlla xar kana mu fii tane na rafet na te danger yi fi nekkoon sax nga xam ne léeg-léeg dara boy yàlla mën nañoo rafet njort ci ne fii ñu taxaw de ci tey jii nga xam ni bisub àjjuma la ñu ngi nodd ñu war a wàcc yaakaar nañu ni loolee doon am fan yii di léeg ñu toog dara boy day yàlla mën nañoo defal sutura ba loolee wax dëgg yàlla loola dootu am bu ko defee nag dana bari lu fi des ci ab liggéeyaat ci yaatalaat béréb bi leeralaat ko waxtaanaat ci nag ki ndigalul sëriñ bi ba xam nan lañ koy organiser loola moom ñun day génn suñuy suñu suñu suñu suñu suñu sañ-sañ ak suñu numutati loolu ndigalul sëriñ bi lay doon wante àndante ko état bi àndante ko commune bi wande àndante ko bokki taalibe yi liggéey fii ak daayiri ci dëkk bi yëpp ñun ginnaaw bu ñu defee li ñu def loo woon wax dëgg yàlla la ca des ñun noonu la ñuy xaarandi ba déggat beneen ndigal ndax yaakaar naa ne lañ ñu santoon moom ci ñetti fan yii nga xam ne ànd nañ ko seetal fii bale moom ah mën nañoo wax ni mission boobu ñun remplir nañ ko àndante ko nag ni ma leen waxee ak askan wépp d'abord wante lépp ci ndigalul commune de Touba Mosquée la jiitu di maire am àndante ko ak waa tubaa ci kanam àndante ko ak Maawu Rahmati àndante ko ak délégué de marché yi wante àndante ko ak UCG bi nga xam ni wax dëgg yàlla kuréel la bu nga xam ni saytu mbalit moo ko fi indi ci dëkk bi ñu teg ko ci loxob commune bi teg ko ci loxob sëriñ bi booba ba tey gis ngeen oto yi UCG ñoo fi teew machines yi Touba ci kanam ñoo fiy teew camions yi commune ñoo fi teew ànd ak personnel de nettoiement ba nga xam ne ñoo nekk ca commune ba kii ma dendal di sëñ Modou Fall sëñ Moussa Thiam tamit mu ngi ci seen personnel ba nga xam ne ñoom moom la ñuy gérer bés bu yàlla sàkk ñoom lañu doon àndal àndante ko aussi ak waa marché bi dañu am seen oto oto bi xëy na ñoom ñoo ko war tout ce qui est fonctionnement commune moo koy def waaye nañu xam ni kon loola ba tey ci njabootu commune bi la ci alalu commune bi la ci démembrement wu commune bi la ni commune bi di saytoo marché bi ni la leen di accompagner ñoom comité de gestion wu marché bi ba li ñu yor ci matériel aussi jëm ci gestion des ordures commune di leen defal tout ce qui fonctionnement moo xam gérer ñi nga xam ne ñoo ne c'est des agents leen jox fi ñu nekk fi en permanence chauffeurs ñoo leen di gérer en permanence seen i seen seen i seen i salaire carburant bi muy fonctionner seen i wax na ko si loolu lépp commune la war kon daal ñu xam ni ñu xam ni wax dëgg yàlla liñ ñu santoon daal ci ginnaaw tiis bi nga xam ne daloon na ci askan wi nañu fexe ba euh, wàññi wàññi euh, euh, danger bi danger bi mooy toujours ñu mën a am lu takk wala lu taqal wala lu gaañ nit loolee lañ ñu santoon ne nañu ko setal bu ko defee yaakaar naa ni kilifa yi danañ fi dellu si waat ko seen bopp danañ ci waxaat danañ ci joxewaati ndigal loola nag moom li ma leen wax rek dañu koy bàyyeeg ñoom euh, euh, muy sëñ Mor Lo mi nag ak man keroog ba nga xamee ni ñëw nañ fi gouverneur ñëw ñu visité gouverneur moo instruire maire ne ko da ngay def un arrêté boo defee un arrêté délégué des coordonnateurs ñu superviser la li ñuy def fii ñu yor ko loolee ba mu ko defee maak Mor Lo mi la désigné à ce nañ fi ne coordonner tout le travail moo tax ni ngeen ko gisee nii ak ñu nu àndal ñëpp chaque fois bu ñu dee xëy si à commencer par la police nga xam ni mission dissuasive euh, dissuasive la ñuy def wane ne ko mission de sécurité benn yoon sept heures la nekk ba saa yu nu wàcc les sapeurs pompiers gis ngeen seen rotation maanaam à chaque minute wala trente minutes ils reviennent dañuy dellu sur le terrain xool ba xam amul foyer bu jugaat wala bu jug d'ailleurs constaté nañu ne ñetti guddi yi jàll yëpp chaque fois guddi gi danañu dem ba mu am fu nga xam ne dafay tàkkaat mais dañu leen di demander à ce que ñu deviennent sur le terrain diggante une heure di fayaat un foyer bërki démb defoon nañ ko ba démb ci loolu lépp ci ndigalul maire coordination bi maanaam moor mi la ko dénkoon vraiment tous ces acteurs là mu nekk euh, les les services de l'État les services communaux wante ñi nga xam ne dañoo nekk ci marché bi ak daayira yi nga xam ne ci ndigalu sëriñ bi la loolu lépp moom lañ àndante woon di ko coordonné di ci sant bu baax a baax vraiment la presse locale ñoom ñëpp ñi ngi fi woon les sites internet réseaux sociaux yi ñoom ñëpp ñi ngi fi woon vraiment di véhiculer taxawaay bi nga xam ne ñi ngi ko doon def fii te yaakaar commune bi fekk seen askan wi état bi fekk si na askan wi mais daayira yi ak taalibe yi ñoom aussi tooguñu kenn ku ne dikk na ànd ci liggéey ndikku ñu leen du kese waaye dañ cee defaat seen ñax fexe ba tiis wi mu yem tey ñuy ñaan ñuy ñaan ci baaxug sëriñ bi ci baaxug bi lii moom yàlla bu mu fi amati mukk mukk mukk waane tamit na doon lu nga xam ni jeexee te ñu muñ ko delloo suñu bopp ci sëriñ bi baax dëgg yàlla euh, li li li wolof njaay di wax rek euh, euh, li fi jóge wax dëgg yàlla li ko desee ko ëpp ndax tant que ñoo ngi am dund di wér yàlla ak sëriñ bi ñu defaloon xéewal mën nañoo mayaat lu ëpp li fi di fi jóge kon ñi nga xam ne ñoo ci yàqul la ñu ngi leen di gën a maswal waaye di leen ñaanal yàlla euh, voilà euh, moom la moom moor di fàttali nii fi ne ñetti kilo yi ñëpp maanaam quelque comme trente camions nga xam ni ay mbalit ñetti fan yi maanaam jëlee nañ ko parce que chaque jour vraiment def nañu ay dix voyages onze voyages loolu mel na ni kon li fi nekkoon ci ay débris ay lakk-lakk kenn fi bàyyi woon toujours ni mu doon def day jekki-jekki tàkk parce que tooy maanaam mbalit bu kilee rek dafa am leneen lu muy composé wu nga xam day jékki-jékki rek boy ñu yaakaar dafa nit ko taalal al ko tàkkul mais na muy àndaate ci biir kii bi loolu moo koy indi surtout que produit yi fii dajaloo nga xam c'est des produits euh, ngi fi yeneen yeneen façon ngi xeet yu nga xam ne bu ñu laalantee sax bu dara ki boolu ngelaw uppee sax ñu tàkk te loolu euh, ñoom ñi nga xam ne ñoo yore sécurité xam nañ ne tant que loolu jóge fu rek kenn mënu woon a tàggale nit ak sawar si moo tax nii ñu ko taxawee def ko daal vraiment ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ginnaaw bi ñu amee ndigalul sëriñ bi ginnaaw bi ñu amee ndigalu autorité waaye ginnaaw bi ñu yàlla mayee nag ak wér ak man ak kattan ba loolee ñun sant ñu man koo taxawee vraiment ci sama turu bopp damay sant agent commune bi yëpp damay sant waa Touba ci kanam di sant waa Maawu Rahmati di sant délégué wu marché bi di sant population yi di sant la presse encore une fois parce que lu ñu fi taxaw chaque fois ñoom it ñëw nañu accompagner la sécurité muy muy muy muy muy la police les sapeurs pompiers ñoom it seen taxawaay noppalu wu ñu guddi noppalu wu ñu bëccëg vraiment ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ni ma ko waxee di ñaanal ñëpp kenn ku ne ànd ko wér ñu bokk daal ni ma ko waxee woon ñu boole suñu bopp cest à ñoom marché yi nañu boole seen bopp ay secteurs yu bëree bëri naa ne nañu lëkkale seen bopp doon benn ñu xam ni commune bi ñoom la fi nekkal ñu doon benn commune bi daayira yi ñu doon benn askan wi doon benn ñu jébbal suñu bopp sëriñ bi te déglu ko sàkku ñaanam sàkku mbaaxam lu fi jaar rek la waaye tawfiix rek lañ fi amewaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu